jaajëf waay sama gars yi bii moom mënuma leen ko woon bañ a nettali benn paa bu màggat moo romb ay boy di football mu taxaw ni leen booy maa leen dàqoon football de gis ngeen jamonoy asmara saajo maane Mané lañ ma doon woowee <laughs>